moo tax man li may li ma jàpp te bu ma nekkoon à la place du président loolu laay def te su ma ko doon xelal loolu laa koy xelal mooy sa ministre nañ dem liggéey tey ministre boo dem doo fa fekk kenn ñëpp a ngi toog di xaar la nomination de premier ministre kañ la xamuñu te même bu fekkoon ni dañ ni la samedi dañuy nommer premier ministre samedi dañuy changer gouvernement yow ngay ministre mais liggéeyal bañ ni la jóge nga fi. bis bu ñu la nee nag nekkatoo ministre nga gérer les affaires courantes ba ki lay remplacer ñëw donc vraiment damay lancer un appel à mes amis ministres dem nañu jam ñaajow devant le président devant tout le monde ma sargal leen féliciter leen parce que xam naa ne liggéeyu ministre dafa metti lu bon ñu ni yow lii li ma Boubacar Sall yàlla na ko yàlla xare ajjan daan wax mu ni ma am na loo wax bu ñu ko xeeb bu la naqare ndax ndajem gumba gaana derub yàlla du fa rafet ndaje bu Gouba ak Ghana yàlla du fa rafet. ndax ku ci nekk la ko dal yàlla mu ko teg ah. kon ku am lu la naqari rek ni ministre bee. man xuloo naa fekk Serigne Mbaye Thiam parce que SDE dañ ma indil seen seen eau facture ru 500000 ma woo ko mu di ma lakk ay daadaa ba lu ko yow doo dara <laughs> pourtant maa ko tooñ et c'est comme ça. lu yàqu rek dañu naan ministre jàmbaar la ñu def parce que quand même ku sañoon bu ñu la woow sur 17 millions de sénégalais ñu tànn ne yow lañu ñu dénk sport yow la ñu dénk nangam boo sañoon même bu dul dara sax di nga fa liggéey liggéey boo nga xam ni foo jaar ci mbedd bi ñu tàcc waa góor ñëpp ko bëgg. boroom kër bu nekk boo sañoon sa waa kër ñooy dàq lu ñuy lekk ñooy gën lu ñu sol ñoo gën fu ñu tëdd seen oto yi gën a neex ak leneen ak leneen boo ko deful rek. c'est parce que mënoo ko donc vraiment encore une fois je les félicite mais nañ dem liggéey yi nag nañu génn seen kër yi nañu bàyyi sangu yi ñuy sangu 24 heures sur 24 sëriñu Kolda yeeg yu jigo sax am na ñu fi indi <laughs> ñëpp a ngi Ndakaaru di sangat di gas di suul boo demee dara boobu say euh, <laughs> seer xar yu weex yëpp jeex nañu <laughs> xar yu weex yëpp jeex nañu donc vraiment il faut que ñu dem liggéey nañu liggéey ay jàmbaar lañu nañu dem liggéey ku ñu reconduire nga xam ne loolu la ku ñu reconduire nga xam ne loolu la te changement de gouvernement comme amagul ku nekk liggéeyil